boobu ba léegi ñu ngi ñaxtu ndax amaguñu benn répondant amaguñu benn réponse tey mooy sunu quatre euh, quatrième plan d'action bu ñuy def te dañoo compter tant que woowuñu ñu ñu négocier sur table du ñu bàyyi moo tax tey bi ñu ñëwee fii à la gare parce que ñoom travaux yi ñu fi fekk dañ ko arrêté pour mu def pour def alerte xam ni nous sommes prêts à tout bañuñu ci dara parce que nit ki mënul bàyyi njabootam amul lu leen dundee nga dem war a faye ko doo faye ko say ay salaire am na ñoo xam ne ñu fayu salaire amuñu couverture médicale amuñu dara donc kon wun duñu seetaan nag sunu yenn nit ñi di dee am na ñu commencé dee moo tax gars yi hé eh, nañ leen jóg bo ba léegi ñu ngi muñ ñaata at ñuy muñ boobu ba léegi moo tax tey ñu ñëwaat fii tey continuer plantation bi nañ ko waxee woon dañ koy continuer loolu na ma parce que tamit mënoo bëgg partenariat te ñi nga xam ne mooy les anciens yi nga xam te ni ñoo fi nekkoon ñu war a jot ñu retraité war a jot seeni pension normalement jotuñu ko nga bëgg partenariat boo xam ne nga bëgg dox kër gi dox mais loolu mënta nekk partenariat bi da koy commencé ci anciens yi waxtaan ak ñoom waxtaan ak cheminots yi nekk en activité waxtaan ñëpp jubóog ñëpp ci lépp ak population même la population de Thiès partenariat bi mën na taxaw ñu ñaan accompagner leen fu ngeen taxaw ñëw tàccu ñaanal leen li ngeen bëgg mu am relance bi bi ngi chemin de fer bi dox mais loolu bu amul mënta ne danoo yaakaar ni dafa am ñu yàq ci diggante bi parce que dafa am politiciens yoo xam te ni comme ni ma leen cité woon keroog des ministres des députés yoo xam te ni amulul président Macky Sall njëriñ bu ñu gisee nit ki kaas ay droit am ñu non président ñii dañ la contre mais ñun contre ñu Macky Sall. man dañ leen fësale si opposition bi. non ñun nekkuñu nekkuñu opposition lii dañuy casse suñu droit man boo ma xoolee xoolal li ma solo. xool ko. bees maro bi da ngay xam ne man xoolal. Hmm. depuis damay damay ma ne ba ma jógee PDS. maa ngi moom ñoo nekkoon PDS man Macky Sall. bi mu ñëwee créé APR ñun ñëpp dañoo dem fekk si ko APR. ba léegi ñu ngi ak moom. ñëpp ku ma gis ku gis Awa Doukouré moom xam na kuy Awa Doukouré bu ko laajee kan mooy Habib Gaye dina ko kan mooy Habib Gaye ñun dañ koo dañ koo gëm dañ koo gëm dañ koo bëgg range bi bam bam xalaatee bu suqali somme affaire ñun dañ koo rafetlu dañ koo rafetlu ànd ak moom bani ni comme bu yàlla dogalee nag moom mu war a dem dafa war a dem en beauté dem en beauté mooy ay nitam am ay problème ay nitam am ay problème di souffrir mais daf leen a war a jàppale ku li ku ni képp ku ko wax ni ko ñi ñi ñii ñii dan laa compte waxul dëgg ñun xool suñu ga yëpp boo sa ma ñëpp la majorité quatre vingt pour cent ñëpp ci mouvement présidentiel bi nañ bokk. même bu ñu àndul ak moom dana koy laaj mais suñu àndee moom daa war yomb parce que am na ñoo xam dañ ñuy xas am na ñu ñu xas naan mais yéen nan ngeen mën a nekkee topp ci ginnaaw mag waaj sa nan ngeen mën a nekkee nan ngeen mën a nekkee ci ginnaaw Macky Sall yéen di ko jàppale boobu ba léegi te ngeen ay waayam. ba pare ngeen di souffrir comme ça mais loolu jaaduwul. gouverneur moom daf ñu bett. moo fi teewal euh, état bi. moo fi nekkal état bi bett nañu trop gouverneur bett nañu jox nañ ko lettre d'audience pour toog waxtaan ak moom comme moo fi nekk président Macky Sall pour pour que le président xam tawat yi yële tawat bi dëgg dëgg dëgg à 100 pour cent ñu ni bu ñu toogee gouverneur xëy na gouverneur dina ko yeggee. situation bi fi mu toll peut-être xëy na am na ñoo xam ni les politiciens yi nekk fi xam xëy na duñ ko ko wax mais moom gouverneur moom dina ko wax mais boobu léegi ñu ngi léegi mat dix jours gouverneur ñu ngi koy déglu ba léegi woowuñu. dina ñëw de dégg nga ba léegi woowuñu ah bind nañ ko lettre lettre baa ngi nii bind nañ ko lettre ba diñ koy xaar. kon lo comme dégg nga kon loo te IPRES li mu wax leer na. IPRES nee na ko bind le si signal ma leetre bi. garantie mis bi ministre de finances la ko wax. dafa ma lettre de garantie boo ma bind leen lettre man IPRES man ma fay am na xaalis su ma fayee deseeg yow mais loolu yomb na loolu mu def ko yomb na. ah bu ñu wooyee en négociation ñun tam nous sommes prêts heure bu ñu wooyee en négociation bu doon 5 heures du matin 4 heures du matin ñun dinañ leen déglu waxtaan ak ñoom parce que bu ñu waxtaanee il faut allah kulli aal déggoo day am. ëpp ñu ñu kàddu dama ne ñun ñoo leen ëpp kàddu parce que ñun production bi ñun dañ daan produire di doxal chemin de fer muy dox daan nañ dem ba ay 40 000 tonnes di ko def fii dans les moments les plus difficiles relever nañ fi ay défis plusieurs ci chemin de fer heure bu bëggee surux ñun ñoo daan takku jóg chemin de fer dox. mais ñàkk considération boobu lay wax quoi. ñàkk considération bi du yoon. parce que ay wax kii candidat ak lu topp ala ko yéen voilà. voilà li ñu jaaxal loolu tamit loolu tamit li ñu jaaxal tamit loolu la parce que yow mënoo rës ñun ñu demandé la ay audience depuis 2001 ñu ngi bind ay lettres d'audience pour que président daat ñuy recevoir dégg léegi nag li ñu bëgg mooy mu recevoir ñu mi ngi ni recevoir na ay ay politiciens yoo xam ne neenal parce que dañ leen a recalé parce que ñooñu amuñu dara amuñu dara amuñu dara ñu recalé ñëw fii pour négocier moo tax ñu dem ñu ñu ñu daal leen ñu ñu ñu kii dalal leen di waxtaan ak ñoom ñun ñu ay travailleurs ah liggéey 40 ans de service ñi 30 ans de service 37 ans de mais ñoom ay jafe-jafe mais dañ ñoo war a woo dalal ñu boo ñu dalee ñu waxtaan ni mu déggoo ak ñooñu war na mën a déggoo ak ñun te ñun njabootam nanu plan d'action bi euh, tey ñu ngi fii bii di ñëw di leen def ay ay prière di leen ñaan parce que dañ ko waxoon dañuy ñaan di ñaan nag parce que ay ay ay ay ay ay jullit nañu dinañu ñaan dinañ toog def julli comme ni ko yàlla waxee woon nit ki jullit bi soo amee lu ko naqari am lu ko metti dafa war a toog ñaan ñun nag dinañ ñaan duñu yàq de parce que ñun nous sommes comptables de la de la euh, kii de la situation actuellement bi nga xam ne président liggéey na ko ci Sénégal nous sommes contents parce que ñoo moom duñ ci yàq dara dinañ ñaan yàlla bu ñu kanam mais dinañ toog nag def ay ñaan yàlla dinañu dégg te bu ñu yàlla déggee du baax si ñoom parce que moo baa mooy am àq nit na yàlla bëggul kuy tooñ mu moromu moromu moromu doomu aadamaam dégg nga àq la te dignité tey jii rentrée des cours des tribunaux lu ñuy wax tey dignité nañ wax dignité nañ wax moom nañ fay waxtaanee tey aujourd'hui tey ñun suñu dignité dafa daanu xoolal dañ ko ba bafoué yow nan nga mën a liggéey ba retraité ah bëgg nga liggéey ba retraité nga dem ñu ne la yow sa sa tour ko fii da nga liggéey 40 ans de mais loolu ko ko yow lan ngay dundee sa njaboot yàq na sa dignité kenn du la respecté koñ ba nga dëkk sax du xam lu xew te mënoo wóor ci koñ bun bu kër ga nekk di wax duñ xam lu xew am na ñoo xam ne nga tëdd feebar amuñu luñ fajoo mais seen dignité daanu na kon boog ah monsieur le président Macky Sall maa ngi lay woo. maa ngi lay woo maa ngi lay woo ñetti yoon lii am ah réglé ko parce que ñii say njaboot nanu danoo ànd ak yow depuis 2012 ba nëg ni sa parcours yëpp ñoo ànd yow kenn mus ñoo dégg ñuy wax lii ñu naqari nag mooy suñu pension rek na ni laaj ñaanu ñu mayee nan fi boobu ba léegi yéen a maye ku yëngatu ñu may la ku nekk ñu may la ñun dan ni nan ñu fay sun yëf la ko moom dañoo liggéey ba retraité ñu war ñoo verser suñuy pension verser ñu kon président ñu ngi lay woo bul déglu waxi ma Samba bul déglu waxi ma Demba gars yi gars yi pour yenn politiciens dañuy yàq rek nan ñi dañoo contre ñun la dañoo bëgg nga la lii nga dem en beauté bu ëllëgee ñëpp di la di ñaanal ñëpp di la ñaanal yàgg sa njaboot nga nekk ci salaam ak salaam moo gën asalaamaaleykum wa rahmatullah di am tuuti loo xam ne bëgg naa ko leeral diggante ak eh, Macky Sall eh, manuma wax gouvernement Macky Sall ndax mak Sall moo leen di jox sañ-sañ moo leen di xañ sañ-sañ waaye man dama bëgg kenn ku nekk ci nga sol mbubb mi sémino eh, yi sol maguma ci mbooloo mi yàlla dama dimbalee ma mën a teew ñu ma ci mag a ngi fi waaye da ngay jàpp mag mu liggéey ba war a fayeeku fayeekuwul walla mu waroon a fayeeku ñaar fukk dem di fayeeku juróom e, e, e, dëkkale wuñ la fenn fudul ni da ngaa contre Macky Sall Macky Sall bu ko waa Thiès contre na xoolaat boppam mais na xool kàngam yim fi ba Abdoulaye Dieye docteur Ndiaye Abdoul Mbow Thiès gii la ñu dëkk Eh, xam nañ li xew Thiès bu ñu demee ba mënuñoo gañe Thiès eh, ñoo ko yóbbee seen bopp yàlla dëgg la bëgg yonent bi dëgg la bëgg nit eh, bu la jàppalee ba nga falu nga jël ay kàngam teg ko biir Thiès te kàngam yooyee amuñu benn satisfaction bu ñu mën a defal waa Thiès buñ teg seen loxo ku la contre ñoom ñoo la wutal ay noon sa liggéey kenn du ne rafetul waaye lii la dese ñoom ñoo ci bëgg a xëpp suuf waruloo ko nangu tey waruloo ko nangu ëllëg képp ku retraité gis na sa loxo gisaat na sa loxo gisaat na sa loxo ba muy ñeenti yoon waaye ña xam ne len leen dara dara dara ñooñu nan la ñuy gisa sa loxo loolu maa ngi koy laaj beneen bi ki tawat war a faju te amul lu mu fajoo e, e, e, ki xaalisam war ko ko fay te fayu ko ko lu dal sa loxo ma nga ca biir nañu waxante te yàlla tax Macky Sall kenn bañu ko ñi mu fii ñoom ñooy xëpp si cere suuf ndax seen intérêt bopp ministre de finance la mu taxaw wax ko assemblée nationale Sénégal yëpp bu ñu ne dëgg la man maa koy weddi waxul dëgg kenn ku nekk na sol mbubam man Galaye maay wax ak yéen euh, waxul dëgg amul kenn ku Macky Sall di nommé euh, euh, ministre jox la ordre ñaari weer nga lànk bañ koo def te Macky waxul ci yow Macky ñàkkul fayda Macky ragalul da doon waxe bakkenam loolu wax loolu waxul dëgg xaalis bi fa ñu ko jëmee du fa wate nañ ko bitse ñoo ko moom nañ ñu ko jox ñaanuñu euh, bañ ñuy may lebuñu euh, bañ ñuy lebal euh, abuñu bañ ñuy aal dañu ni liñ ñu sàccoon feeñ na d'accord ngeen ni dañ ko sàccoon d'accord ngeen ni feeñ na d'accord ngeen ni dañu koy fay wata ngeen ko ci bitse jox leen ñu ko ngir yàlla. Nous sommes aujourd'hui à la gar c'est pour marquer encore une fois euh, notre désarroi face à l'autorité. Il fait la sourde oreille. Ils euh, ne, veulent pas écouter les, les, travailleurs. Par contre, nous sommes des anciens euh, de la régie qui n'ont pas été respectés. Nous n'avons pas de respect par rapport aux, aux, aux autorités de ce, du, du pays. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, notre plan d'action sera poursuivi Aujourd'hui, nous sommes à la gare ici. Aucune évolution Pas d'évolution. Pas d'évolution. Euh, C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour tenir exactement. Vous avez vu, nous n'avons nous pas l'intention d'arrêter les travaux, mais on l'a fait. C'est pour alerter l'autorité. Parce que la prochaine fois, nous allons tenir ici de, euh, de, domicile. Ça, ça c'est clair. Parce que oui, oui, oui, nous, nous, nous, nous avons... Nous avons des anciens malades. Nous avons des anciens qui ne peuvent pas retrouver leur, leur, leur, leur, leur, leur, leur, leur pension. Et c'est inadmissible. Oui, Bofouye, dignité d'honnêtes cheminots qui ont fait 37 ans, 40 ans de service. Euh, leur, leur, leur, leur dignité est bafouée. Et je pense que la justice, le président de la République, chef de la justice, euh, doit prendre euh, des mesures pour, vraiment Euh, éradiquer cette, cette euh, forfaiture. Mmh. C'est une forfaiture grave. non, non, non, je ne suis pas au courant naturellement de la visite du ministre des mais Finances. mais le message, c'est que euh, le ministre des Finances, euh, comment il s'appelle encore, euh, Ba. c'est lui qui était devant les, députés pour dire qu'il doit payer les cheminots. Il ne l'a pas fait. Les gens ont contracté des, dettes. nous enregistrons beaucoup de malades. il y a de décès. On ne peut des, des, des, des couvertures médicales au niveau de l'IPRES. Ça ne peut pas continuer. C'est ce qui est normal. pour lui de avec une surprise à des Parce que des anciens qui ont travaillé de 37 ans, 40 ans et qui ne parviennent pas à être euh, sous, euh, régularisés de leurs droits. Sall, c'est notre ami, Ça, il faut le dire. C'est notre ami. Il m'a appelé le 4 janvier 2021. Il m'a remis un milliard et quelques en, en, en 2021, Tabaski 2021. Mais donc, c'est notre ami. C'est lui seul. En tout cas, au niveau de l'État, on l'a écrit, il a répondu. Donc, euh, euh, lui, le président, il, il respecte les cheminots. mais mais mais mais mais n'est pas sensible à vos problèmes. non il est non, moi je ne peux pas dire qu'il n'est pas sensible il est sensible parce que je l'ai il m'a appelé lui-même je l'ai écrit il a répondu par le biais de de de son directeur de cabinet de l'époque euh, Mahmoud Saleh bon donc lui le président il répond mais mais les ministres et les directeurs ne répondent pas ce n'est pas normal euh, le ministre de, de chargé des des infrastructures Mansour Faye je vais le nommer aujourd'hui venir donner des maisons à des cheminots Est-ce qu'il y a deux types de cheminots Est-ce qu'il y a deux types de cheminots Je demande. Ce n'est pas normal. Ils vont nous pousser à, à, à faire des, dénonces, si vous voulez. Et on ne veut pas arriver là-bas. Euh, ce que l'on veut, c'est avec euh, de régler le problème des cheminots.